fexe ba waay laago yi am ay jumtukaay ci fànn bu ne loolee doon na li nga xamante ni dina leen mën a wàññil coono mu di gis-gisu mbootaayu waay laago yi nekk fii ci réew mi. réseau bi dañ ko dañ ko teg pour mu jàppale waay yi waaye jàppale seen bopp pour ñu mun a dox jëm ci li ñu tuddee inclusion te ku wax inclusion nag jëmale ko ci waylaago bi da ngay gis ne li ñuy duppee accessibilité muy naka ngay def ba mën a jotee ci li nga soxla ci kañ nga ko soxla ci bërëb ba nga ko soxla loola dafa bokk ci li ñu mën a tuddee ay conditions sine mooy yoo xam ne boo ko defee dinga nga mën a jëmmal li ñu tuddee àq ak yelleef jëm ci wàllu accès. ci biile ndaje ñuy dekkil li nga xamante ni moom moo di réseau bi ndawi askan wi bokk ngir ñu mën a yeggee kàdduy waay laago yi ca péncum ndaw réew ma fa ñuy dogale di fa voté ay loi dana ba képp ku nga xam ne sii daal am nga soxla ci ñëw ci batiment public yi wala ci euh, dem ci hôtel wala foo war a dem rek nga nekk ci condition yi nga xam ne si war nga mën a dund épanouiru comme niñ koy waxee réseau parlementaire bi nag day soññ loolu te itam am na loi d'orientation sociale boo xam ni président de la république na ci ay décret mais il faut ñu avancer. ratification aussi du traité de Marrakech mi ngi taxaw am na ay chantier yu bëri yoo xam ni parlement bi moo ci war a taxaw. ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ni moom moo di jafe-jafe yi waaye laago yi di dund ci réew mi ba mu mën a leer ci xelu réseau bi ba ñu mën koo joote pincum ndaw réew ma jubluwaay bi war a doon fexe ba waay laago yi seen nekkin. ci biir société bi doon lu mucc ayib ba nga xamante ni daanaka waaye laago bi ak ki cëram mat ku ci nekk la nga yelloo du am xàjj ak seen ci ñii le ñaar